Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous merci de vous merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois di partager ngeen information yi mbokk sénégalais yi fépp le mënti nekk quatorze régions du Sénégal ruq-ruqaat yi gox-goxaat yi ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp nga wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire ak gi ñeneen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des sportifs et de Baba Show l'actualité en continu gars actualité ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag moo donc équipe nationale du Sénégal jëm nag mooy donc Edouard Mendy mi ñu daal décoré du côté à l'Arabie Saoudite avec statut de meilleur gardien également qui a donc Nicolas Jackson à qui on donc Antonin Pochettino li nous wax ci jëm nak ci yene kay bi nga xam donc record ci xatam gu njëkk ñëw ne Jackson défie le cyborg Haaland jëm nak ci jëngati boora am diggante ki donc Erling Bro Haaland ak ki nga xam ne moy donc euh, Chelsea ak Manchester City ak ki nak di kii di Nicolas Jackson nañ dellu kanam la kanam laata booba yene kay bi di stade ci xatam gu njëkk ñëw ne Pape Matar face au Lou Jackson défie l'ogre City hein wax également ci jongante yi war am yëpp Sadio Mané Koulibaly nga xam ne jamono ji dal mo war nañoo mën profito ci nga xam ne nag mooy donc euh, ki di Al Ahly bu Edouard Mendy nga dafa daal di perdre match am pendant ce temps wax naa ne ko waa Knight moom seen contrat ak waa Barça day waaj a jeex

Brüssel bon mais dinañ ko perdre hein, parce que club yu bëri daal ñi ngi koy soxla notamment Paris Saint-Germain mais tamit ni ko Newcastle na ci am xaalis gu bëri bëri bu fekkee jaay ko parce que actuellement dal depuis ba mu jógee Lyon Lyon fa ba léegi mi ngi wane benn xar kanam également di Nico Williams aussi le frère de Iñaki Williams bon nag fi ne nii wax naa leen ko Arsenal dal mi ngi accéléré jëm ci mais aussi waa Real Madrid ñi ngi jéem a situation Paris Saint-Germain aussi ñi ngi xool profil joueur bi parce que dafa xaw méngoog bu Kylian Mbappé pendant ça également Lautaro Martinez moom que beaucoup na ci hein, le premier joueur de de la Série A notamment de l'Inter de Milan bo xamné ne trois saisons mu teg ko dougal au minimum 20 euh, buts ci trois saisons constantes ki nga xamné ne donc euh, kii di Lautaro Martinez Jürgen Klopp nag gars yi ko laaj ko euh, Mbappé ñëwoon nak di côté des Reds de Liverpool mom nak nee gay bo yi boo leen bëggee dégg-dégg mom fi ne nii man mom lool mom <laughs> sama yoon nekkatu ci mais nak li ma mën wax da moy ko né jamono ji ak club yi xaliss gi ñu yor ak li ngay yeneen club yi mën du club yu nekk ñoo mëna indi Kylian Mbappé surtout par rapport li nga xam ne da nga koy dépensé kii nag di Palmer.

Marseille mais dal rêve meilleur Marseille pendant ce temps qui nga xam aussi nak moy donc Sébastien Haller mom nak nakaté bu muy jouer. match contre euh, donc finale bi contre Nigéria dafa rëqoon moo tax daal ba mu dendee club am club am nee na day noppaliku ñaari euh, semaine benn ba ñaari semaine euh, parce que dafa am rëq loolu la wax joueur sénégalais nak tay dañuy dugg en lice tàmbalee ko ci Blues de Chelsea Crystal plutôt ak Tottenham Nottingham Forest ak Everton donc ak yenn joueur sénégalais yoo xam ne fi mu ne nii bokk nañ ci cadre yi ci club yooyu noonu jamono ji Nicolas Jackson nag ki nga xam ne donc Mauricio Pochettino dem nag ci ki nga xam ne donc Nicolas Jackson ah nee na moom daal fi mu ne nii ah, Nicolas Jackson xam nga dafa jël carton jaune keroog benn carton jaune fi mu ne nii moo ko dese pour ñu daal di koy suspendre ñaari match ndax dafa def ay cumul de carton keroog nag dafa toog ci banc bi équipe am dugal ñetteelu bi bi mu daal di génn di jubilé arbitre bi si la ko joxe nag li nga xam ne donc gars yi carton jaune ah donc carton jaune boobu nag fi mu ne nii kii na Mauricio Pochettino nee na man je préfère moom mu kontaan que muy triste parce que loolu day wane également dafa bëgg équipe bi dafa nekk joueur bu collectif et tout. pendant ce temps aussi qui nga xam ne donc El Koumba Mbodogore Mendy gis ngeen ko fi ak trophée mu nekk joueur du mois de décembre hein donc du côté nga donc fofu nono de l'Arabie Saoudite hein donc parmi les meilleurs parmi les meilleurs gardiens donc au gardien mois de décembre moo nekk ca kaw gars yi bu len ko fàtte te duñ ko mës tay di ko wax déli leen seen carte électeur di wax na élection yi day am bu amul le 25 février mois de mars bi duñ ko dépasser am élection ndax lolu conseil constitutionnel wax lolu bokk naa bokk na si li wax jëmono ji di jël leen seen carte gars bu len ko tayal fépp foo leen mënti nekk boo leen xamoon li xew ci dëkk bi wala ngeen gis yenn doom adamay liñ len tek di teg ngeen dem génn fàttali également suñu euh, papa ji nga xam nak moy euh, donc père Bodian nek nak gardien du côté donc du lycée Maurice Delafosse ñu dal di koy jël ak njabootam yëpp ci kasso bi te deful mais di profito di remercier euh, donc une personne directement mais c'est un gars bo ci prison yi di gars mais aussi nekk ci ali di ay tout respect à ce monsieur et que également ñu koy donc une leen vidéo yi mi duggal ki su indi ab également nga ko gars nak ñu jox leen li waral tay ñun sénégalais ñu parce que li metti na gars c'est mais li aussi bu di di like di on avance ensemble dans la magie des de Baba Show bu ci la nañu di xaar ci discours 31 décembre bi mu wax ci détenu politique yi té bu a nga xamanté Sénégalais bi koy faté li si ñu ñu fi ci manifestant. ci clandestin ngeen wara de clandestin ñoo fess kasu bi del del li fi nek fi ci manifestant wax si ñoo xam ne sa waay dañu fay seen xaalis dugg si géej gi hmm? nga jàpp leen delloosi leen seen dëkk doo leen bàyyi ñu dem bàyyi doo leen ñu dem nga jël leen indi leen dugal leen kaso pourtant réew bu ñu doon dem bu ñu demoon du ñu leen di jël teg leen si ay conditions yu baax jox leen ñu liggéey faj leen yow nga dellu si waat sa biir réew per sa xaalis ñu boole dugal la kaso téye la fi def la mandat de dépôt nag te waxuñu la kañ lañ lay lijjanti xoolal ma boobu injustice loolu fan la am président ak gouvernement bi taxaw tem président bi ak gouvernement am taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. yëpp ñu teg ko ala siratil mustaqim. yëpp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam. lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko yoon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jikko xanaa ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla yàlla sóob ci wowu yoon. képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak. liggéey nee na su ko defee ñooñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquraniya waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaya yàlla yeeg hadisu yonent bi di ko firee nu leen neex. ngir ragal gouvernement ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque ba. ak ragal léegi tey nga wuti ci nit xalaat dootu la may bopp mel ne mag ñi liggéeyu ñu wala ñu fi nekk duñu borom yi xam-xam. nit du tuutal ba. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waay waay ku dem te kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu fa liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waay waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. waay lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yëpp. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen tee. Allah. allahumma salli ala Allah allahumma salli. allahumma لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا